juróom-ñeent fukk ak juróom lu ngeen xalaat ci yeesu xaaj bu jëkk bi asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ju ak moom ba am na nanu mbégte ci leen mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub bu yàgg ba léegi nu ngi doon gëstu ci mbind yonent yi ba gis yoonu njub bi yàlla tëral ngir bàkkaarkat yi mën a jub fa kanamam gisoon nanu ni waxu yonent yàlla yi mate ci almasi bi yeesu ni dex yuy tàbbi ci géej tey jii nag ak ci njàng mi ñëw danu fas yéene nafarandoog yéen ndamu ki yonent yi doon wax loolu moo waral sunu ñaari njàng yi tudd lu ngeen xalaat ci yeesu ci sunu gëstu ci linjiil déggoon nanu ni yéesu daan laaje nit ñi lu ngeen xalaat ci almasi bi ci lu wér laaj bu am maanaa la te faaw ku nekk ci ñun tontu ci ci lu wóor sunu taxe ci àddina ak laaxira mu ngi aju ci sunu tontu ci laaj bile léegi almasi bi yeesu dellusi te bu ñëwee dina la laaj ni mu ko laaje woon niti jamonoom ne yow nag loo xalaat ci man li nu tax a jóg mooy xamal leen kan mooy yeesu ci dëgg-dëgg li nu gën a soxal mooy kenn bañ leen a nax ci mbir moomu nu ngi leen di ñaan ngeen bañ a xalaat ne yeesu kirist ab yonent kese la mbaa nit ku baax rekk ci biir nit ñi déedéet kenn la amul moroom ci àddina ak ca laaxira lu ngeen xalaat ci moom ku ngeen koy teg am na fukki laaj yu nu leen bëgg a laaj ci mbirum yéesu almasi bi ci bu jëkk lu ngeen xalaat ci juddoom guy kéemaane gi amul keneen ku juddoo ni moom mooy yéesu doomu maryaama xam ngeen ne dañuy wax yaxya doomu sakariya suleymaan doomu daawuda ismaila doomu ibrahima nit ñépp seen santu baay lañuy sant walla ñu toftal seen turu baay ci seen tur lu tax nag yéesu moom ñu toftal turu yaayam ci turam ndaxte amuloon baay ci kaw suuf ci janq la juddoo ci kàttanu yàlla képp la juddoo te góor raxu ci juróom ñaari téeméeri at laata almasi bi di juddu yonent yàlla esayi waxoon na ni mu nara juddoo bi mu naan janq bi dina ëmb jur doom ju góor ñu tudde ko emmanuel liy tekki yàlla gane si nanu ci pëndu suuf la yàlla sàkke sunu maam aadama te nun ñépp ay doomi aadama lanu ni yonent yépp itam ci suuf lanu bokk waaye moom borom bi yéesu ci asamaan la bawoo moo tax ñu koy woowe ruuwu yàlla nun ñépp dañu mel ni suuf su tilim ndax sunuy bàkkaar waaye yéesu almasi bi dafa mel ni taw bi jóge asamaan ndaxte ku set te sell la ni yàlla sete te sell danuy jàng ca linjiil ne yéesu kirist gane na àddina ngir musal bàkkaarkat yi laata yéesu di gane ci àddina si ma nga woon ca jataayu yàlla ndaxte mooy ruuwu yàlla dafa tànn moom ci boppam ñëw yor bindu nit ngir musal nu ci sunuy bàkkaar ma nga jóge ca kaw dañuy nettali ne dafa amoon bés ñaari góor daanu cib teen kenn ki ne moroom ma xettali ma waay ci bërëb bu naqari bi génne ma ci rapaxet bu bon bi waaye moroom ma ne ko yow daal yaa ñàkk xel nan laa lay génne te mën ak yow yépp nekkandoo ci biir kàmb gi ñoom ñaar ñépp ngi woon ci biir te kenn mënula génne moroomam ba mu ko defee nag ñu dégg baat bu bawoo ca kaw di leen wax ñu jàpp ci buum gi mu yor ca teen ba nit ka daanuwul woon ca teen ba rekk mooy ki leen mënoon a dimbale indil la leen wàll gi jóge ca kaw ñi gën ci yonent yi mënuñu woona musal ci kàmbu bàkkaar ndaxte ay bàkkaarkat lañu ñoom itam waaye yéesu moom donnul jikkoy bàkkaar bi nekk ci nit ci kaw la jóge ci janq la juddoo gisoon nanu it ni yàlla yónnee woon ay malaakaam ak ni mu tege woon bidéew bu rëy ci asamaan si ngir yégle juddub almasi bu sell bi di musalkatu àddina si lii moo kéemaane nit musula juddoo ni nit ki kenn la ci juddoom mënee su ko tëkkale ak keneen waaye màggaayu yeesu yemul ci juddoom rekk yéesu kenn la itam ci jikkoom ñaareelu laaj bi nu leen bëgg laaj nag mooy lu ngeen xalaat ci jikkoom ju sell ji yéesu ku mat sëkk la woon musula def baakaar benn yoon sax mësula ñaan ngir ñu baal ko ndaxte musula tooñ kenn bépp nit ku ragal yàlla war nay tuub baakaaram tey ñaan ñu baal ko yonent yàlla yépp def nañu ko waaye mën ngeen wër ci kàddu yàlla gi ba mu daj te du ngeen ci gis benn aaya buy wax ne borom bi yeesu dafa ñaan ngir ñu baal ko soxlawul woon ñu koy baal ndegam amul woon bàkkaar ay xaritam ak ay noonam seede nañu ne mënuñu gis ci moom genn tooñ amul keneen ku amul bàkkaar nag borom bi yéesu weesu na yonent mooy ruuwu yàlla gu sell gi feeñ ci kaw suuf waaw yeesu kenn la ci jikkoom mënee su waaye am na leneen lu ñu war a xam yeesu kenn la itam ci ay waxam lu ngeen xalaat ci njàngaleem benn bés ay noonam yebal nañu ay xarekat ngir jàpp ko ba ñu agsee déglu njàngaleem ñu dell ci jàppuñu ko dañu waaru te naan kenn mësula waxe ni nit kooku xalaat leen ci li mu wax ci boppam ne maay leeru àddina si ku ma topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dund yonent yi dañu mel ni weer wi ak biddew yi xuuy ci àddina su lëndëm si waaye yeesu dafa mel ni jant bi anal lan ngay doyeeti weer wi ak biddew yi su jant bi fenke yonent yi tudde nañu almasi bi jantu njub bi weer wiy wàññeeku dafa mel ni yonent yi waaye Yesu kirist mooy jant bi ndax mës ngeen a gis jant bi muy gën a wàññeeku du fay mukk réew yépp lay leeral yéesu kirist dafa mel ni jant bi du wey mukk yi àddina yépp a ko bokk Yesu nee itam man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi yéesu wuute na lool ak kilifay diine yi santaane naan def leen li topp leen njàngale mi yoon waa ngi jëfe leen ndigal yi Yesu Kirist dafa wax ne man maay yoon wi gëmma topp ma te dinga am sañ-sañu dund ci jataayu yàlla ba faaw Yesu ci boppam mooy yoon wi nanu fexe misaal li loolu di tekki dafa amoon xale bu tuuti bu réeroon ci benn dëkk bu mag mu laaj benn alkaati ngir mu tegtal ko yoon wi kooka ne ko dangay tàllal ba ca kanam nga jàdd ca ñaareelu koñ ba ci sa càmmoñ jàddaat ca ñetteelu koñ ba ci sa ndeyjoor ba noppi nga eh, jàll pom bi jaar ci tali bu wërngalu ba dogiwaat yoon wu mag wa rek gone gi daldi yëkkat jooy moona alkaati bi yoon wi la ko doon tegtal waaye xale bi dafa ñàkk doole te ragal a topp li ñu ko tegtal waaye ci saa soosu am ku mu bokkal gox ku fa jaar mu jàpp xale bi ci loxoom yóbbu ko bi xale bi doxee ba sonn mu fab ko ba mu àgg ca kër ga alkaati bi dafa ko tegtaloon yoon wi wante ka ca des nag moom moo doon yoon wi ndax moo ko yóbbu yeesu nee na man maay yoon wi maay yoon wi jëm àjjana di kër yàlla man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci yàlla baay bi te jaarul ci man ci lu wóor kenn mësula waxe ni borom bi yéesu kenn la mëneesu ko tëkkale ak keneen waaye ndamu yéesu yemul ci juddoom jikkoom ak njàngaleem rekk mën nanu ko gis itam ci ay jëfam lu ngeen xalaat ci kàttanu jëfi yéesu yéesu mën na lépp kàttan gépp ak sañ-sañ bépp joxees na ko ko lépp luy jëfi yàlla borom bi yéesu def na ko ci kaw suuf ngir won nit ñi fu mu jóge ak ki mu doon ana kan moo mën a dalal ngelaw li su yàlla yeesu dalal na ngelaw li ana kan moo mën a dekkal nit ku dee su dul yàlla yeesu dekkal na ñu dee ana kan moo mën a ubbi bëtu gumba su dul yàlla yeesu def na loolu tamit wéral na xeetu jàngoro ju nekk genn kàddu rekk la daan wax rab yi daw soppi na dundu nit ñu bare te musal leen ci bàkkaar yonent yi ci turu yàlla lañu daan defe ay kéemaan waaye borom bi yéesu ci turu boppam la daan defe ay kéemaan moom mooy ki mënoon na jàkkaarloog góor goo xam ne am na fanweeri at ak juróom ñett te doxul mu ne ko maa ngi la koy wax jógal te dox nit ka daldi jóg te dox mësul jëfandikoo garab ci turu boppam ak ci kàttanu kàddoom rekk la daan wërale nit ñi nit ku ñuy wax lasaar dafa faatu woon ñu suul ko ba yéesu agsee foofa fekkoon na ñu suul lasaar ba mu am ñeenti fan yéesu dem ca bàmmal ba ne lasaar génnal ci biti néew ba daldi génn bàmmeel ba yeesu am na sañ-sañu dekkal néew wi ba tax mu mën ne maay ndekkitali ak dund gi bés dana ñëw boo xam ne ñépp ñi nekk ci bàmmeel yi dinañu dégg baatam te jóg taxaw fa kanamam yow muy déglu tey dinga génn sa bàmmeel itam su la fekkee nga dee waaye léegi sax borom bi yéesu mën na la may dund gu bees ak sañ-sañu dund ba faaw ci kaw soo ko gëmee ni sa musalkat ak sa boroom ba tey yeesoo ngay soppi ay dundu nit ñu bare ci àddina sépp mën na sot soppi sa dund yow itam loo xalaat ci yeesu loo xalaat ci jëfam kenn la aji kàttan la mënee su ko tëkkale ak keneen bala nuy tàggook yéen tey des na leneen lu nu bëggoon a laaj ci mbirum yéesu li nu leen bëgg a laaj mooy lii lu ngeen xalaat ci turam ak ci dàkkantalam ni nu ko gise woon ci mbind yonent yi yéesu am na lu ëpp ñaari téeméeri tur ngir nu mën a gën a xam ki mu doon dañu koy tudde Emmanuel kàddu gi doomu nit ki mbotem yàlla mi rammukat bi musalkat bi ñam wi joxe dund gi garab gu wóor gi sàmm bu baax bi leeru àddina si boroom ndam li ndekkite li alfa ak omega ki jëkk te mujj njalbeen gi ak mujj gi bunt bi yoon wi dëgg gi ak dund gi doomu yàlla aji kawe ji ak yeneen tur yu bare bare bare gisoon nanu yonent yàlla muusa ni ñu ko tudde waayu yàlla yonent yàlla ibrahima xamees na ko ci xaritu yàlla waaye kenn rekk a am ku ñuy woowe doomu yàlla léegi nag wax leen kan moo gën a jege nit xaritam walla doomam wax leen dëgg gi nekk ci seen xol rekk nag waaw yeesu lañuy woowe doomu yàlla yàlla dafa tudde yeesu doomam ngir ràññatle ko ak ñeneen ñépp dañuy jàng ci linjiil ne yàlla dafa wax euh, ci yeesu ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex déglu leen ko lan la yàlla bëggoon a wax foofu dañuy wax ne doom ji mooy takkandeeru baay bi ku gis doom xam nu baayam mel ku xam yéesu kon xam nu yàlla mel moom la mbind mi wax bi mu naan kenn mësula gis yàlla waaye bàjjo bi di yàlla te nekk ak baay bi moo ko xamle ndax bëgg nga xam yàlla am diggante bu neex ak moom ba faw kon ñëwal ci borom bi yéesu mi yàlla tudde doomam doom mën na wax ci turu baayam teewal ko feneen loolu mooy li yeesu def bi mu nekkee ci biir nit ñi looloo tax ñu tudde ko Emmanuel di tekki yàlla ganesi nanu am na ñu foog ne yàlla aji kawe ji mënula feeñ ci kaw suuf ci bindu nit wante kuy xalaat noonu juum na te umple ne pexe mi yàlla rabatoon ngir musal bàkkaarkat yi dafa ëmb ne faaw xelum yàlla ci boppam wàcc feeñu ci kaw suuf ci yaramu nit ngir xamal boppam doomi aadama yi te jot leen ci loxoy iblis mbokk yi yàlla ku màgg la te amul àpp te dafa bëgg ñépp xam ko looloo taxoon mu doon nit dëkk ci kaw suuf lu ngeen xalaat ci turi almasi bi yéesu ay dàkkantalam benn la fi lu ngeen xalaat ci juddoom ci jikkoom ci ay waxam ak i jëfam ku ngeen koy teg mënee su ko tëkkalee keneen amul moroom kenn la waaw sunu jotu tey jeex na waaye bu soobee yàlla ci njàng mi ñëw lañuy àggale njàngum tey mi tudd lu ngeen xalaat ci yeesu yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li mbind mi wax bi mu naan ci borom bi yeesu kirist maanaam ci yaramu nitam la matuk yàlla gépp dëkk te mat ngeen ci moom